ñi ngeeg euh, Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye euh, sénégalais yëpp xam nañ ko ndaxte ci coowul Ousmane Sonko bi moom lañu wax ne moom moomoon salon de beauté suite beauté mu mel ni dafa am ay wéyu yu la kar ci yoonu Kaolack bi encagoulé wu ba pare nag nangu sa téléphone def la ay menaces est-ce que mën nga ñu nettaliwaat histoire bi yëpp nan la demee. Pape Alé Niang maa ngi lay ziare bu baax di la remercier euh, loolu bal ma fay ñëw dafa am leneen lu mu war a expliquer ba pare ñu xam lu may dund dafa am sama benn élève bu nekkoon Sweet Beauté ñu koy wax Fatou Casamance la dëkk dama ko boole woon ak Sonko mu di ko maase Fatou boobu problème bi bi muy am mi ko fekk Casamance bu mu ñëwee mu mu wax ma ne ma man de damaa bëgg a tijji institut Nord Foire ma ne ko ah munuma waaw bu mu tëjee institut bi noo di liggéey di liggéey di liggéey ba temps yi julli gi am benn waay bu nekk euh, Suisse kook su ma déggee dina xam bu baax li may wax mu defaroon ma benn kañot licc bu ma defaree kañot bi licc kañot bi nekk deux cent vingt mille CFA léegi waa licc di ko laaj ay PS di ko laaj lii di ko laaj di ko laaj li ba mujj gi mu wax li ci envoyé message li ci ne leen ñi nga xam ne ñoo dugaloon si cagnotte bi delloo leen seen xaalis ñooñu noonu samay am yi lañu woon pour ñu ma jox ma xaalis bi ma jox ko Ndeye Khady Ndiaye léegi li ci jël xaalis bi delloo ko Madou Diop boobu noonu bu ko delloowee xaalis bi mu jox ko benn xaritam bu ñuy wax Ousmane Ousmane Coulibaly la ki mu ñëw Sénégal si jullik tabaski gi bu mu ñëwee mu woo ma téléphone na ma xaalis bi lu may def ba jox la ko ma ne ko man de damaa siburu sama jëkkër dafa siburu te bu dul loolu tamit fa ma dëkk dafa sori ak fi nga nekk mais am na sama benn xarit bu ñuy wax Fatou bu nekk Nord wóolu naa ko trop pour ma jox la ko nga joxal ma ko xaalis bi mu ne ma nañ jàpp demee man ko amul problème ma jël numéro faatu ma transféré ko kooku noonu. muy Ousmane Koulibaly boobu xam naa su ma déggee dina confirmer bu baax li may wax léegi bi ma jëlee numéro bi ma jox ko Ousmane Ousmane woo faatu ñu dajee ñoom ñaar mu yëkkati euh, mu yëkkati euh, deux cent mille jox ko bu mu ko joxee deux cent mille après nga xam naa lépp lépp lépp bu trois cent vingt mille la su ma juumul mu dellu ko woowaat téléphone na ko am na ñeneen ñu dugalaat tes na vingt mille francs faat woo ma ne ma ah waa ji da joxaat na ma yeneen vingt mille ne na parce que dafa am benn copain am bu yéex a dugal xaalis bi ma ne ah, waaw léegi xaalis boobu may jàllantu ak Fatou man ndeke man ñu ngi topp samay traces topp li may def topp li may wax topp li may dund démb am ay policiers yu woo Fatou ne ko sa cabine boobu nga nekk ndax Ndeye Khady Ndiaye moo ko moom papier yi lañ soxla. Fatou nag instant bi tiit na nee day tëj institut bi parce que moom bëggul benn problème léegi woo na ma sax di jooyaat encore mu ne am keneen ku ko woo du ma tudd turam si biir euh, central bi na ko cabine bi dañ ne Ndeye xadi Ndiaye moo ko moom dañ ne Ndeye Khady moo moom cabine bi dañoo bëgg nga présenter papier ñu xam ne Ndeye Khady Ndiaye moomut papier bi moomut moomut institut muy leen Ndeye Khady Ndiaye moomut institut bi ñu dellu ko ko dellu ko waxaat na ko Ndeye Khady Ndiaye ñëw na sa buntu salon ak jëkkëram te loolu démb la man ma xam ne ñu ngi topp samay trace démb bi ma bi ma bi ma demee euh, euh, feneen lu mu tudd sax Sacré Cœur damaa demoon foofu loonu pour defar sama bopp doom bi ma fa jógee koom ma ñëw range samay bagaas maak sama jëkkër jëm si Kaolack benn waay bu gaañoo benn paa bu gaañu ñëw di ko jàll si maak ak sama jëkkër bu ñëwee ba si yoon bi ay bandi ñoo kar maa ngi nii damaa tiita tiit yoon bi sama jëkkër doon jënd ndox di ma jox ba ma yegg si ni man Ndeye Khady Ndiaye sa téléphone iPhone bi nga génnaa lañ soxla téléphone bi loolu moom lañ doon wër ma yëkkati téléphone bi simplement ñu jël seen kanam ñu masque ko parce que Ibrahima boobu góor la mais mënu réagir parce que ay ñetti ponkal taxaw la tiim la téye ay ngàndaay téléphone lañ soxla ma ne ko Ibrahima mënu ma finaa ma ne ko ma jox ma jox leen téléphone bi ma yëkkati téléphone bi teg ko seen loxo ñu dem ñu dawal suñu oto buñ demee ba si yoon bi. suñ pneu bi dellu crevé waat maag Ibrahima ak sama jëkkër ak sama ñaare doom yi ndaw yi bu pneu bi crevé fu topp àll bi di dem ñu taxaw ci digg àll bi benn waaye moo ñu fekk foofu dimbale ñu léegi la coupé ak man moo sëgg suuf oto bi defaral ñu oto bi ñu ñëw ba Kaolack mooy ñun ñu jiitu mu topp suñ kaw bu ñëwee ba Kaolack mu jënd ñu oto mu jël ñu pneu léegi nag man Ndeye Khady Ndiaye nag sonn naa man Sénégalais yéen Sénégalais yéen laay waxal sonn naa tay na man ubbeeguma institut nañ bàyyi jàmbur mu liggéey liggéeyam kooku noonu xaalis bu mu may jox nit moo ma ko may ma boole ko ak moom bàyyi leen jàmbur mu liggéey liggéeyam bàyyi leen jàmbur mu liggéey liggéeyam ñaareel ba sama téléphone iPhone bu mu jël dinaa bind convocation parce que man sonn naa fu mu toll parce que téléphone bi man xawoon naa dañ ko jël parce que si la preuve yëpp nekk jël nañ ay fan ba nag maa ngi nii damaa ñëw dëkk su ma su may su may jógee koo Dakar police laa jëm parce que instant bi sama dund bi man xam naa ne moom pare na ñoom pare nañ man pour sàkkal ma pexe maag sama njaboot parce que bàyyi ma guddi bàyyi ma bët lii laa amoon lu may expliquer Sénégalais yi pour ñu xam ko. jërëjëf Ndeye di Ndiaye. merci beaucoup Papa Alé Niang.